waaw man comme que dirait euh, entre parenthèses une presse partisane. non man nañu wax ne bon en tout cas boo xoolee euh, situation bi ñuy dund ñii. Mhm. ak situation bi ñu dund ci nguuru Ablaye Wade am na fu ñu fu ñu daje. ok euh, parce que Wade moo indi fii presse privée ba am presque un empire. Mhm. de presse. nekk opposant vingt six ans presse bi gunge ko mais Abdoulaye bi mu faloo rek dafa koy dafa yaakaaroon presse bi dafa ànd ak moom mhm. donc premier mandat bi deux mille ba deux mille 2007 sa ça roulait bien mais à partir de deux mille 2008 problème commencé am en diggante presse ak euh, ak Abdoulaye Wade ba fin bi mhm. donc euh, moom tamit na il a il <laughs> des journalistes en prison Abdoulaye ouais. mmh. malgré le modèle qu'il pour la presse moom moo jàppale presse privée presse indépendante ak démocratie mm-hmm. la même chose avec Macky Sall mmh. Macky Sall bon je vais venir <laughs> euh, euh tellement de conflits mais depuis 2019 le second mandat mm-hmm. il y a une chasse ah, c'est Walf c'est c'est NTV c'est euh, les journaux privés c'est Pape Ali bon il y a euh, une lutte farouche contre la presse privée ci nguuru Macky Sall hmm. maintenant lu lu ñu mën a expliquer foofu mooy que il y un problème au niveau de la gestion de la presse privée c'est-à-dire que ñi nga xam ne ay journaliste la ñu woon ci jamono Abdoulaye Wade ak jamono Abdou Diouf ñu xeex ba ñu am seen presse ba ñu am seen liberté am na ñu ci bari ci ñaari alternance Wade ak Macky am na ñi nga xam ne ils sont devenus des acteurs du pouvoir soo xoolee tey jii euh, ci nguuru euh, Macky Sall. Mm-hmm. bari na journaliste bari na conseiller en communication bari na ñi nga xam ne ci presse bi la ñu jóge donc euh, quelque part. ñooñu ñu ngi ci nguur presse ñi nga xam ne ñu ngi fii euh, depuis 2012 ba tey ji ñu ci bari ñu ngi jàppale Macky Sall. Mm-hmm. waaw il reste maintenant les brebis galeuses ñi nga xam ne ñoom bëgguñu dugg ci lool. les têtes brûlées quoi fu ñu nekkoon ci juuf les jeunes jeunes fu ñu nekkoon ci Diouf en euh, ci juuf foofu lañ nekk ba léegi. de l'éthique, la, la, profession, les libertés. Mmh. Bon, donc c'est ce conflit-là moo am diggante ñi nga xam ne ñoo moom presse bi ak journalistes yi soo gisee sax euh, bon ma joxe tur mais tous les groupes de presse ñi nga xam ne ñu ngi soutenir Macky Sall yi ñoo gën a am problème foofu. Mm-hmm. parce que patron bi moom day jàppale président de la république mais journalistes yi mënuñu jàppale nguur donc loolu mooy conflit et je pense que. madame Diop a raison euh, Sénégal manque nañu expérience médiatique mmh. en France c'est depuis trente ans depuis quarante ans les sociétés amul benn entreprise bi nga xam ni euh, c'est une entreprise médiatique fekk journaliste bi n'est pas actionnaire du capital am amatul mhm. c'est ce que le monde appelle le blocage mmh. que, que journaliste yi suñu amee une action même si c'est 10 pour cent 11 pour cent 20 pour cent c'est une minorité de blocage. Mm-hmm. c'est-à-dire que rédaction bi dañ koy protéger. Mm-hmm. yow mii nag mën nga nekk capitaliste mën nga nekk droite mën nga nekk gauche mais rédaction bi ñun ñoo ko moom. mais tey jii pour nga gis rédaction autonome di patron c'est rare ou même peut-être que ça n'existe pas. Mm-hmm. ah donc là il y un problème que les euh, patrons de presse wala les journalistes code de la presse baax na. réforme de l'entreprise baax na mhm. mais soo amul une action de blocage amoo fenn foo mën a jaar ba diriger média bi journalistes yi dañu war a bàyyi xel que c'est pas des travailleurs euh, des esclaves entreprise boo mënti dem tey ji tu une rédaction c'est elle qui fait vivre l'entreprise mm-hmm. mooy matière première bi comme ni ma ko waxee information bi mm-hmm. sa matière première bu dee loolu mooy base bi c'est l'entrant principal avec euh, le, le journaliste mais kooku mënoo ko mënoo ko jox un pour cent dafa dafa bokk ci entreprise bi c'est un actionnaire mm-hmm. et, donc journalistes yi nañu ubbi seen xel ñu xool que bon c'est vrai que la situation est assez difficile nu mu ko waxee yàlla y a l'autocensure. C'est vrai, elle est là. Les gens ont peur de, de Macky du gouvernement, des ministres. ba même ni ñuy waxee même ni ñuy waxee dañuy censurer seen concept seen terme nu ñuy apprécier parce que tu as peur mais aujourd'hui nga def poste waaye le lendemain tu es à la digue hmm. ñeneen ñi ils sont en train de croupir en prison donc il faut que journalistes yi quand même euh, yeewu xam ne que euh, gis nga école bi ñuy wax waxtaan nañu école pendant deux ou trois semaines école ni mu bokkee ci démocratie ni muy tabaxe mais noonu la pes tabaxe